en en des périodes maanaam moment donné c'était facile mais en deuxième période tout et c'est dans cette difficulté ce deuxième but qui nous a libérés mais on on est on est rentré en deuxième période difficilement très difficilement même et l'adversaire même avait l'opportunité d'égaliser parce qu'on n'était pas bien nous avions démarré tardif euh, difficilement la deuxième période mais à un moment donné on a marqué le deuxième but qui nous a libérés Après, le troisième but est venu et c'était plus facile vers la fin parce qu'on a plus euh, maîtrisé le jeu. On a essayé de travailler. On a essayé aussi d'être en bloc bas et laisser le ballon à l'adversaire dans sa zone, essayer maintenant de les contrer. Non, j'ai dit que euh, le, le début de la deuxième période, on a eu des difficultés. De la première jusqu'à la onzième minute, on a eu des difficultés parce que l'adversaire nous a acculés et avait même l'opportunité d'égaliser. Mais c'est dans ces, dans ces moments de, euh, de, euh, de, difficiles qu'on a, qu a, marqué le deuxième but. Et ce deuxième but maintenant nous a fait du bien parce qu'on est rentré après dans le match et on a marqué le troisième but libérateur. Mais il mais, mais, mais, faut pas nous sortir de notre, de notre objectif. Moi, je pense que nous sommes toujours, toujours dans, notre, dans notre logique de maintien parce qu'on ne se focalise pas sur la première place. Nous, on se focalise sur, sur le contenu de notre équipe après chaque sortie. on calcule même pas les résultats et les points. Et nous, si on parvient à en tout cas chaque dimanche un bon match, c'est important pour nous. On est toujours dans notre logique, c'est le maintien. Bon, si on a un match, mën nañ ko jàppee match piège quoi parce que équipe la bu nekk ci kaw ak bu nekkoon ci suuf et bu il fallait que ñu ñu ñu dem ci match bi avec euh, beaucoup de maturité mooy li ma waxoon joueurs yi parce que c'est match boo xam ne ñu bàyyandikoo rek mën nañu am surprise C'est un match qu'il faut jouer avec beaucoup de caractère, mais aussi avec beaucoup xam par rapport aux consignes qui sont liguées dans la semaine par rapport à l'adversaire. Donc il faut que nous appliquions ce que nous faisons et faire aussi que l'adversaire soit du tout. mais yàlla dimbali nañu ñu teel a dugal dix-septième minute mais bi ñu demee mi bi bi ñu ñëwaatee amoon nañ ay jafe-jafe pour duggaat ci match bi adversaire moo gënoon a dugg ci match bi ci ci commencement bi deuxième mi bi moo waral sax Euh, xaw a jege na suñu camp lu bari pour mën a égaliser mais yàlla def na dugalul et ci moment yu jafe yooyu sax ñu ñun ci lañ dugalee suñu deuxième bi bi nga xam ni moo ñu gën a libéré gën ñu dugalaat ci match bi ba yàlla def ñu dugalaat euh, troisième bi bi donc résultat bu important la dañ ciy féliciter tout le monde donc di ci sant yàlla e di revenir encore sur terre rek pour nekkat ci suñu logique bi nga xam ne moom lañu nekkoon au départ parce que suñu logique mooy lan mooy ñu ngi doog a ñëwaat Ligue 1 gëjoon nañ fi depuis trois ans jóge nañ fii donc dañuy fexe nu ñu fexe équipe bi maintenir Ligue 1 guñ fa parce que chemin bi gudd na dese nañu ay points yu bëree bëri yu nekk suñu kanam suñ demee nag ba nga xam ni points yi ñu bëgg daal pour pour maintenir euh, pour maintien bi am nañ ko leneen lu nekk sunu kanam loo xam ne daal yàlla jox nañu ko ñu xool nan lañ koy téye daal ba bi jeex. match bi li ma si jàngat mooy comme ni ko coach bi waxee rek bon ñun bu ñu nekkee bu ñu nekkee à domicile moom dañuy xam ne à domicile lañ nag quoi dañuy joxe lépp duñu denc dara parce que tamit équipe loolu dafa solo quoi boo nekkee à domicile di gagné say ku fi ñëw rek da lay bàyyi xel loolu la ñuy préparé match yi di préparé match yëpp nag parce que benn match jafe benn match yombu ci fi ñu toll ñëpp a ñëpp a bëgg a ma ko waxee woon keroog rek ñun ñu ngi ñu ngi fii di def suñuy entraînement lu suñu coach su sant rek loolu la ñuy def ci terrain bi du def leneen leneen loo xam ne moom santuñu ko lépp lu ñu def ci biir terrain bi rek moom moo ñu ko sant moo ñu def leen lii ñu def loolu te bu heure bu ñu ko defee gis ci résultat waaw maintien bi ñun loolu la ñu sant ah xam nga joueur sax warul wax ndax dafa soxla championnat am de ñun lu ñu sant rek lañuy def mooy lan mooy fu ñu xoolee équipe bi ñu teg ko place bu baax boo xam ne équipe bi foofu mooy place am ñun loolu la ñu sant ñun joueur loolu la ñuy xeex chaque jour heure bu ñu gisee classement bi kat ñu gis AS xam ni fii AS Pikine nekk fi mooy palaasam.